doole suñu sali te jàng jaaxal te jàng maa ngi leen di delloo ci benn euh, xisa boo xam ni bu ma juumul defe naa Nourou Sar la ne hmm. jamono xalifa bi ñuy wax Mansour amoon na nit koo xam ne dafa rey nit góor la rey ki góor ñu enquête ko xam ni ma moom it ñu nit waaye laaj ñu ko lu tax mu rey ñu tëj ko di ko enquête guddi jot alayhi salaatu wasalaam feeñu si daama nga sasam feeñu xalifa boobu bu mu juw Mansour bi ne ko ki nga xam ne moo reyee génne ko tabax neewu ki tubaal de ki rey nit ki génne ko kaso bi te tabax hmm. li ma wax mi ngi ci archive yi hmm. maanaam ñuy jàng ma wax ay mur lañ loo xam leen xam nañ li may wax mu ba mu génn mu woo nag ba mu ñëw mu ne ko dama lay laaj ndax man bëgg na maa xam daal lu la yóbbee rey nit ki ak yooyu waxu ko nag li ko yonte wax hmm. mu ne ko man bëni laa woon na dama àndal samay morom dem gis benn jigéen bu rafet ñu bëgg koo moye yàlla jigéen te yoo xam ne yéen ñi daa bëgg am ci yéen ku ma tin ndax man deret yonent bi laa yor te musu lu mel ni musu ci am ma bëgg rek am ci yéen ku ma tin ngir yàlla nee man nag sama yaram daw ma ne nañ ko bàyyi am te ko ne du ko bàyyi kooka nag naa ko rey mu ne ko yow loolu tax yonent bi feeñu hmm. loolu wax naa ko nii ngir yàlla waaye wax naa ko ngir ñu xam ne atti hmm. wax naa ko rek yàlla man yàlla sutura na ma sàmm ko du atte sab sëriñ du atte man du boo xam ne da ngay fa pen teg ci boo xam ne l'islam rëdd ko te yow ma atte nga laa man de salaire jël loolu ndax man atte bu mënta ñàkk bu mënta ñàkk sax atte bu moo ci tare te booba ban loolu gam laaj yóbbu ñi jàng ñaan ñu dellu ci at euh, bi suñu seex genn far ma bind bañ bëggee def code de suñu Muntaxa suñu Muntaxa afa xukumal a yëpp xoolal wala suñu lay xukumal la wax moom la signé ma nga ma nga ma nga signé taaratu maa kataboo ibnu axina aseexu amudul mbakk yi foofa jittoo waa deen wudoxal xabar yi bu ma juut loola la seen laat rajo di bilaay rabal islam dina monsieur amul sallallahu alayhi wa sallam loolu loolu la signé suñu saa yu signé li mu wax ci laa ànd suñu seex nag wax ji ci atte bu ñu ko wax lislaam tax at boo xam ne ay xalaat ko a mën nga wutee acte bu wutee ay. kon loolu maa ko maa dama ko ëllëg ndax dafa tombé maa ngi dugg wéer bi. dafa wéer bi. des mooy sëñ Béthio ab ab ab tàmbalee. fekki wu ma lépp ndax danaa ko déglu ma 45 laa nekk si sëñ man 83 la la tàmbali di ko dégg ci kër sëñ lu néewit la fekk suñu taaliw si daara joo xam ne nekk ñu néew ñu néew itam la ko suñu taaliw mos a yónni ci daara mu du fa ñëw fekk ma xam naa kon suñ mataar jaxate rahmatullahi alayhi suñu sadio suñ Moussa Niang suñ Modou Gueye ñooñu nekkan ci kër gi am nañ ci yu ñu xam ci nim daa ñëwee ci sëñ bi waaye da ngay wàllu fa tollee daal tama xam mooy man séem daal ñett yoon la ma sa gane si suñu saaliw ci daara ju bàyyi hmm. ñett yoon la ma sa gane si suñu saaliw ci daara joo xam ne maa ngi ci daara ji hmm. ganasi la ko njàppandal fekk dafa daa ganasi ñetti fan ci biir xilaafa gi got at moom la suñu saliw dana ko la ko njëkk a ganasi at moom la suñu ëpp daa euh, sa mori mhm. ay bis mu ganasi ko lagal mhm. ba mu koy ganasi njàppandal Aliou Cissé moo yor daara ji ba mu koy ganasi njàppandal suñu si laat mu soxna si jenn di ndey yor daara ji ba mu koy ganasi ndooka suñ ma dem suñu ba suñ si kër bi xalifaam fii mu ne kon wax gi leer na hmm. yett ngeen yëpp bu jëlee ba si suñu saali wu ñëwee dani gan gi day indaale doole moo tax buñ ko yëg ni fu mu yenn nit xam ko wax seen a fas wari nit ñi wax waaye damay bañ wax ko nit ñi ba noppi muy ñëpp sañ a fomm doo xam ne wax nañ hmm. te moom ku ne sañ naa fomm sañ na lañ dinañu tudd ñoom tudd ko wàññi dara te li leen koy gënalee waxtu wu ne jëkk nañ hmm. yoon wu ci ne bu fajaree ba waxtaan bi ñëw ni si si ñu waxtaan coono yi nañ téléphoné si mbéy ne ko lu mu laaj laaj balaa une heure na indi hmm. yoon yooyu bu ci ne fekke naa jot naa ci ne kon yeneen yi hmm. la mën a àndal lépp itam ci ay naan ak kooku ak ay ndax suñ na dama ko fonk fonk nga xam ni bu may gane si du ma bëgg saxaar am ci kër gi bu fi kenn toog café yi ngeen tàngal yóbbu leen ko ba daanaka kër gi kilomètre gaaw tàngal ko def ko ci bërigo indi gaz yi di ko jox leen Mm-hmm. néeg bu ne dañ koy cuuraay ba mu ba cuuraay li jàpp ñu upp saxaar si mu def ñu rocc fa xel kooku moom moo xam ne ñu andi <laughs> ay wax la mm-hmm. ca koo xam ne yéen a la dara mm-hmm. loolu xam naa ko ci moom bi ñuy sanc lagan daaree lagan bu tabax boobu amuñuy teel amuñuy ndox boobu moom moo yor meere kaw la ñaari wata ndox lay indi ak mbaarub galaas benn wata ndox bi ci la ñuy gaasee tabax benn bi ci la ñuy seral galaas gi di naan su midee ñaari mbaat dafa indi añ xam naa fa ñeenti maçon yoo xam ne kenn ko ci ne dañ ne kii de liggéeyam bi daa gaaw mu ne ko yow naa tey tey ngay tàmm dee fay ko soo wàccee fekk man dafay mi nga xam ne da ngaa si liggéey bi suñu sa gis naa xam naa ñett ñoo xam ne ci ne da man de suñu béykat damaa gént lan mu ne ko yow ma yàlla kër duma ci loolu ma maa ko gis hmm. te sa jëm sama jëm fonkoon naa ko nag ngir si bi bi bi fi suñu saali wu yu nekkit taal jot am xam nga nan loo dindi kër. Hmm. daanaa gis lu ma ta te sëñ bi am ca ngànt dox ndànk di ko wax ko mu def boo xam ne daa daa daa faatale lay wala mu faatale bàyyi war koo sëñ saali am ca ngànt daanaa ko ci wax loo xam ni dem naa ba yëngu def na ko. Hmm. danaa ñu joxe ñaari tegtal yoo xam ni bu ci ne am na seere loolu laay seere li muy wax suñu mu dem Fall bi mu faatoo. dama koo xamal ne ko suñ soxna bu ñam ma boole leen te may seen jëwriñ suñ mu dem faal tafaal dafa am doom muy soxna soxna faal te day gone te ay nijaayam jëng lañ sant ma bëgg nga ñëw fa jaal ko ba nit ñi xam ne soxna faal mii fam ne fonk nañ maanaam xam nañ cëram hmm. ndax suñu saliwu du ñëw yaakaar naa ne waa kër ga duñ def délégation jaal sax te suñu ko bàyyam mu jox ko mu ne ma danaa ko def maa jógee fii dem Mbàkke wax ay nijaay yi ni leen soxna faal génn leen ko kër bàyyam wutali ko kër gum dal ba ko koy seet fekk ko hmm. doo doo wàññi dara hmm. ndax ay magam mën ne ñoom xam nañu man defar ak sama liggéey hmm. ndax kër gi dañ fiy ñu ko mën na ñàkk gis duñ fi ñëw di rang ñaaral bi kër gi dafa xat te mën naa am ay borom personnalité ñëw wutaat ñaari donga teg fa ca buntu ba ñëw ku fi ñëw laaj ko Sëñ Fall andi na mu ñit ma ko xam ne sëñ béykat la ma njëkk a yéem ci moom ba mu ñëwee la ma wax def daa ñëw ba fa Sëñ Fall tam ba mu ñëwee gone bi yi muy ànd tañ tañ tañ tañ xaajale lool naa indi leen bang indi leen bang dama leen ni bang di bang gi ñëw sëñ bi dana wàcc toog ci suuf hmm. mu ne dama mu ne aboo bi li wax laay def wallaay waa naa dëgg hmm. tey laa ko mën a wax mu wàcc toog suuf ña jaar ma ne ko ñi nga àndal nañ joxe hmm. daa ma ne ko ñi nga àndal wax na lu ñu joxe mu ne eh yii ñu ma àndal jox nañu saa yu faale wax naa dëgg suñ too rek ko tax may hmm. mu jógee fa dem ma fekk kër bi ne ko man li ma sant suñu taal yi man ku ma wax te yàlla nar laa dimbali danga danga xam ne ndax amu ci intérêt hmm. waaye damaa xam ne boo ma toogee ci mag wax ca ñu nii yi sax man loolu mën na leen di jàll santoo faal ba noppi di toog ci bank hmm. fa la neex ci bank sëñ ma ñaaw gay mii bokk ci wadaru ko dóosi daa joxoon doomam suñu saali ku ñuy wax seexu naa ne ba mu faatoo maa dem fa sëñ béykat ni ko demal a gi te boo ko mënta jëloon nag jox ko ci xaalis lu mën a jënd nag ndax daa am ay doy bàyyi te ay seex lañu hmm. fii la jógee ànd ak ko mu ma ma mu ñëw wàcc ma ne ko jooy rojo bi wax li la tax a jóg te daaj ko laay xam ne ne doom dongaam mosuma koo ñaan njër mosuma ko ñaan hmm. waaye nag loolu xamee naa ci ni nangu woon na ko hmm. ba tàmbali di dem ak yi ma leen amatuma jot sama bàyyi faatu ma tàmbali yéeneen ma nekkal ba xaw faa dem nag moom mënut ma faa yàgg ñaareel bi it daanaka rek ku am barke ay gone di la wër bu yàggee da ngay ñëw sax bëgg gis ni si laa ko gëj a gis. waaw mhm. yim seqaat ak suñu sariw nag ci ci diggante jënd ay kaccax ak dikk ci daara xam nga day day ceddo suñu doxee ceddo la nii ba lépp ñaaya la. ñoom dañoo yow. Mhm. bu ma saa la ñëw ci daara day wër gone yu ndaw yii di na leen salaam alaykum ñu ko wax dara ba lu ngeen yaakaar ne moom maa ngi ci daara ji. kenn ko noonu di gën nañu am kecax kenn ko noonu di gën nañu am buy te sëñ Saliou xam nga moom nu mu wuti wuti di indi hmm. man li ma bay sëñ Tuubaa laa ko jox liñ may jox ci màggal gi sëñ Tuubaa laa koy jox li ma taalibe yi jox nag laa leen di bu ñu indiwul dara ñu bokk ni yàlla hmm. bu ko defee sëñ da koy xam bu neexalee gone yi ba yàggee nga gis ko wane laal ëngu bu di wax sëñ Saliou dara day dem bind ci laal loo xam ne mën naa yor daal yëpp di ko mbàkke man damaa sob lool in naa fi laal xam naan sax ñàkkoo ko waaye damaa damaa bëri man man rek mbàkke boobu gu ma tuuri hmm. sëñ bi ah, manqué woon sax boo léegi mu di ko ci suukar dama la ne sëñ Béthio ak kurul sëñ Béthio koo gis sëñ Saliou fonk ko Moustapha Sourang Birane Gueye Amadou ko docteur Fall koo dégg ñun la sëñ Saliou da ko fonk da nga koo fonk lay donga yi ba mu xam ni fonk la nga ko donga yi mu doon laa fonk mhm. waaye sëñ Saliou Moustapha fonk nit koo xam ne fonk la fonkee na la lu donga yi mën na laa fonk ngir loolu nag mhm. nga jaar ci escalier yi ba ci nga tayee ci donga yi mhm. waaye nit mu tam ci suñu cër bu ñu lay fanke mm-hmm. burut na nga koo fank man ko bàyyi defal yàlla mm-hmm. euh, sëñ bo <laughs> waxtaan boo ko dëggee fa nga nekk la yow si saa yëpp laa jërëjëf ngaa wax kon wa salaamaaleykum rek waaw xam naa nag ñu bokkal kër suñu Saliou mm-hmm. témoignage bi ma def ci suñu béykat daal mooy bépp maanaam dama ci waxaat waaw dama ci waxaat damay man yeneen rajo yi dama ci laajal diiraan bu ko ci dégg bu la neexee def ci audio bu la neexee def ci WhatsApp bu la neexee def waaye du ma ci waxaat ndax bu ma gënoon wax itam yeneen yent baan bi nga xam hmm. waaw yàlla ko yàlla yërëm hmm. te rafet naa si def hmm. lii am itam nag ma dégg rek ndax wax na yaakaar naa ni